mais Fall Fall ziar naa la. waaw dëgg ziar. billaay bés bu neex. barke yàlla am ndam lu bëgg. bawol bawol yëpp am ndam. barke yàlla dafa tin rek la ñuy topp. ay mbay guy gi ñoom ñëpp ay champion lañu. wallaahi lancim tey gis nañ sunu bopp ci làmb ji quoi. dafa tin sigi la mbawol yàlla kontaan nañu lool wallaahi. ah ba tey ah, yéen yaa ngi noonu ah, di zibilé ah, waa bawal nee nañu rek la ñu topp topp ñu keneen ku dul bu defee ñu xool xale yi ak moto yi ambiance xale yaa ngi ambiance euh, xale yaa ngi ngeen moto yi noonu yow la may wax yow. dañoo kontaan barke Rasoul laay billaahi dañoo kontaan torop lii mënul ñàkk. waaw gis ngeen kooku mooy bàjjenu Tapha Tine bu ko defee rek ñu waa tuuti rek dugg si biir gaay yi xool gaay yi ni ñu toogee waa sama gaay yaa ngoogu ñu xool gis ngeen sa force de yaa ngoogu ak sécurité bu doy doy tey nag Medina foo sànni mbaat mu tàkk xale yi kontaan nañu ñu ngay jubilé waa champion. Bawol seul ah yooyu roi des arènes la koy gis noonu euh, force de l'ordre yi seen liggéey ñu ngi arrangé xale yi li moo lay wan ni benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar waaw waaw waaw nijaay bawol bawol. mbay guy gi bëre gars nañ di naan mbay guy gi bëre daa bëre xoolal mu bëre tey. waaw non Tafa Tafa lu moo tey grand beneen affaire la barki Serigne Saliou Mbacké lu ñu xaar ci Tapha Tine kay ñëpp xam nañ ko roi des arènes loolu kese la ñu desel barki combat bi avant combat bi ñu gis ne Sa Thiès dëpp ndëndëm Sa Thiès bu amee ku muy bëral na xaar Eumeu Sène wala keneen wala Franc mi koy laaj ñun soxlawuñu Sa Thiès xooluñu ko sax na jël Franc Medina ak Bawol lépp tout Ngunjaan fii ba Ngunjaan fii ba fépp roi des arènes la ñu soxla parce que alxuraanu karim. léegi man ma posé la benn question. waa ok maa lay déglu. mais Amath Yékini ba mu bàyyee lamb tekki njambam man dama gis ni victoire gëj na am Medina tey Tapha Tine ñëw wane solution yen loolu yéen loolee ciy wax yéen. ah loolu de kenn waru cee am xel ñaar moom parce que Tapha Tine ak Yékini moom réeré waaw. ñun daal roi des arènes la ñuy xaar lii kilik yoroon ñu fokkoon ko ci loxoom loolu la ñuy xaar dañ koy jëlaat incha allah. yéen itam pare ngeen pour bëre ak Modou Lo. waaw Modou Lo pare nañ pour bëre ak moom ñun roi des arènes la ñu bëgg a bëreel directement parce que jot na waaw daan nañ Bombardier ñaari yoon daan kii ak kii ak kii doy na sek léegi couronne la ñu bëgg a bëreel yàlla jox ña ko barki alxuraan deseetu lu ñu dara roi des arènes la ñu soxla. te yéen wóolu ngeen seen bopp instant yi. roi des lañ ciy def ko laal dañ koy téye suñu loxo gars bu ñu nelee ba ñu téye ko ñun waa Bawol roi des arènes la ñu soxla moom kese la ñu desel ñuy daal moom Medina kon daal moom neex na daal bilaay walaay Medina Bawol gâteau anniversaire la Medina Bawol ñoo koy séddoo kontaan na ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax bilaay walaay yow dama bëggoon nga tekki ko ci séeréer li nga wax ni maanaam gâteau anniversaire la gâteau na anniversaire Medina fa Bawol deena la sirkana leer na maa sant yàlla bu baax waaw di sant nag waa Bawol ak waa Medina maa ngi supporter ta fatir fu mu nekk maa ngi sant yàlla bu baax roi des arènes nag nañu may saas parce que jot naa moom lese la ñu desal yow nañu si yow tamit daal ak euh, témoignage bu rafet ah ok merci nekkal ci jàmm yow tamit non mbay kay xanaa kay ci yoon gum ne nii maanaam bu mu ci wàcc waaw mbay mu xam ne ñun ñu ngi ci gannaawam bu neexee suñu borom ndam li yàlla ko ko jig ndam li ko jig vraiment te mbay lii mérite la ci moom mbay lii mérite la ci moom tout simplement maanaam mbër bu wàccee boppam la ku am yiite la ci nit maanaam ku baax la te lii daanaka moom moom yàlla bu ko fayee xolam ndam rek lay am te bu neexee suñu borom roi des arènes bi lañ soxla non mbay sama frère la mbay sama frère la du question mbër ak leneen ak leneen mbay sëkk nañ lu bëree bëri loo xamante ne du ci du ci du ci mbër mi manam man mbay guuy gi ci bopam la xam mais du mbay guuy gi mbeur ni nitu kessa la. tay sa mbeur ko koy xaar tey. non non yow ñun ca kaw lañ jëm. non mi ngi ñew fi da fi ñew fi lay defee émission bi. mais tay ji ni euh tay am na ndam lu lay tay mëna ñu la sax euh, mbay du gëna ko dé grand tay kan nga gëna a xalaat euh, wala gën ko bëri kan nga. kan nga ban bëgg gëna xalaat ni mo do bëre bëre mo euh, sa prochain combat. waaw mais mën nañ xaar mo Lo yagul ah waaw loolu combat la mais ñun bu ñu amoon Modou Lo moo ñu gënal sax eh. waaw. te yéen daal ci roi bi ngeen bëgg a jëm daal. mais waaw mais mbay toll na fa. am foo leen teg seen bët daal. roi bi couronne bi lañ bëgg sol mu ñëw fii ñu koy sol ñu koy soloo fii. wante yéen couronne bi bëggoon ngeen ko sol Balla Gaye xayma leen ko. waaw mais dara loolu. mais ñun waxuñu la ñun duñu waxi waxi tafaade ah. ñun waxi mbay guy gi lañ lay wax. Ah, kon yow mbay guy gi yéen ngeen. ñuy topp ñun topp ñu kenn beneen mbër. Ah. waaw waa léegi yow tafaatin tey yow loo gis ci moom yow. non tafaatin mënu ma wax dara ci moom ndaxte seetaanu ma ko man mbay man dama daan sibile. waaw man mbay rek laay topp. te fii daal mooy bitigu mbay guy gi. fii këru mbay guy gi. moom mooy këram mooy léppam. fii mooy léppam. man maa la wax. yow yaay kan yow. maay Mahmoud borom six avenue. ah kon baax na doomu ndeyam. Wow, fal crési frèram frèram teg waaw lépp benn la rek jeex na iya, daal kon kër gee nekk nii kër gee nekk nii te xam naa solo jëlal ma yow bu mbay guy gi di solo yow jëlal ma ko jëlal ma yow di solo yow ah waaw waaw ah yéen mbay rek ngeen Wah, topp waaw kon ma baax na jëlal ma di solo ah te lu voilà ñu ngi fi si Medina euh, di koñu Tafatine ñu ngi si risis bi instant bi ñëpp génn nañ policiers yi ñu ngi te sécurité bi bon Tafatine nag yee seegul waaye nit ñi ñu ngi koy xaar.